asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa seen mbokkum julit seen mbokkum murit sëñ Bàmba Sugu Waadaan moo leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi xalifa général di murit Sëriñ Muntaxa di yeesal sunu taalu di nuyu Sëriñ Maxtaar Sugu xalifa Sëriñ Jéeri di yeesal sunu taalu di bëgg waxtaan ak nag waxtaanu xol moo tax mu tibbee sama xol yéen mbooloo moom nga xam ne yéen a ngi ci pencum Touba Warane lépp lu indi jàmm loo xam ne aw ay la indi woote wu ma loola wax naa ko kii samay kilifa maa ngi leen di déglu seytaane daa bari doole waaye kër sëriñ jéeri ak kër seexee ak la kon loolu fi xew seytaane mënut a bari doole bari doole ba yàq diggante kër sëñ Jéeri kër Seex Ibra te sëñ Tuubaa ne kanam kon nag lépp kër sëñ Tuubaa la ñoo ngi ciy déglu njabootu sëñ Tuubaa ñoo ngi ciy déglu njabootu sëñ Jéeri ñoo ngi ciy déglu njabootu Seex Ibra kenn ku ne loo ci wax ba mu rafet loo ci wax ba mu ratax neex na jàmm rek lañ bëgg moom lañ ñu yare moom lañ xam waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh